aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk àdduna sépp di tax nag nuyoo bi ñu adressé ko directement ci waa àdduna waaye dafa soxal àdduna sépp moo tax ñu nuyoo directement waa àdduna li soxal àdduna mooy lan bokk na ci wàll wér-gu-yaram ndax ko amul wér-gu-yaram du mën a joxe liggéeyam ñu ko bëggee waaye ay activité am ba ci jaamu yàlla dana taggatémbe kon mu mel ne ni ngeen ko gisee ci écran bi muy émission gëstu émission gëstu dafay émission bu yees ci Tawfekh Production ñu leen ko amalal ay bis bu nekk ñaari yoon bokk na ci li ñuy waxtaane mooy meññat ak njariñu meññat ku ne xam na ni boo toppee cosaanu doomu aadama mooy cosaanu meññat ndax doomu aadama yàlla moo ñu wax ci alxuraan daf ko bind ci suuf ak ndox waaye ku ne xam na ni garab ci suuf ak ndox rek lay saxe kon nit ku nekk dëkk ba mu dëkk meññat ya fay jógee dafay am solo ci moom bari na lu ñuy romb ci marché mel na lu ko xeeb doy dol ko fekk na yow mi ko xeeb yaa ngi jël ay millions ak i junni yu bari di ko def ci dara te fekk na loolu mën na ko faj waaye nag fa mu nekk nag loxo dafa jotewul waaye xam-xam weesu na ko kon daa ñu dem ci lu ci nekk ñu indi leen ko tegal leen ko ci table gi wan leen ci pratique kon ci xam-xamu fajtal ak xam-xamu lasraar lan mooy lasraar lan mooy xeeti xam-xam yi nga xam ne bu leen ko joxee ci ay tegtal di ngeen ci mën a xamee lépp lu di dugg ngeen am ci lu leer su ngeen géntee mën a xam gént gi lan lay tekki xam lan mooy saraxam waaye itam bu cet nekkee seen yaram ngeen mën a toog ci seen biir kër mën koo dindi ak yu aju ci yooyu yëpp émission bi dana ko indi ndax it dañ daan gis rek ñuy wane lu baree baree bari xeeti xam-xam di ko limité jàpp ni lenn li waruñu koo xam waaye njariñ moom fu waay mën a nekk war na ko mën a xam ndax njariñ jariñe lay jariñ kon looloo waral Tawfekh Production jub indi équipe bu mag boo xam ne ay bés bu nekk da leen indil ñaari émission benn bi lasraar lay doon benn bi fajtal lay doon muy émission yu am solo kon yow mii di gis annonce bii gaawal gaaw nga dem ci seen production Tawfekh production nga abone su ko defee émission bu jàll di nga ko mën a jot ci sa téléphone wala ci sa Smart TV wala ci mboolem jumtukaay yi ndax émission la boo xam ne di wétta wóor mooy émission mosu fee jaar ba mel nii ndax amul limite teg ñëpp ci mën a jariñ mag mën na cee jariñu gone mën cee jariñu góor mën cee jariñu jigéen mën cee jariñu étudiant beeg élève beeg ki jàng ci daar ji ñëpp mën nañ cee jariñu kon émission baa ngoog Tawfekh Production lay doon émission gëstu xam-xam xaw ma bopp ci xam-xam xaw ma bokk ci waaye ak émission gëstu lépp dina gën a leer incha allah